salaamaaleykum mbokk auditeur réew mi FM dal leen a jàmm seen émission li ci réew mi quatre sujets comme d'habitude la ñu indi euh, di waxtaane euh, bokk na ci explosion bu ñu nemmeeku euh, ci compagnie sucrière sénégalaise dinañ ko waxtaane Euh, risque yenn euh, usines yooyu li nga xam ne euh, dañuy dend lool ak askan wi dinañ waxtaanee mise en garde yi nga xam ne ñenn ci pes ñu ngi koy def ci président Macky Sall waxtaanee itam. saisi matériel bi ay jumtukaay yi nga xam ne ay jeu de hasard la lu am takku suñuy gendarmerie nationale jot nañ ko teg loxo laata ñuy daana leen ak desi imam Alioune ndaw Euh, ni ki démb ca hôpital Fann ma bàyyi samay collègue ñu nuyoo balaa ñuy commencé waxtaan wi Abdou Khadre. ñoo ngi nuyu mbokki déglu réew mi FM. loolu voilà ñuy nuyu auditeurs u Rewmi FM yëpp. Jacques. ñu lay nuyu di nuyu ñu ñuy déglu ñëpp. voilà suñu premier sujet bi ñuy waxtaanee euh, benn cuve d'éthanol moo explosé démb ca compagnie sucrière sénégalaise nekk ca Richard Toll euh, ba askan wi nag génn nañ mer nañ ba fupp nee nañ lu ñu bëgg moo di ñu jëlee fa euh, boobule société ndax jàpp nañ ni àndul ak seen dëkkuwaay amoon na ñi nga xam ne am nañ ay gaañu gaañu ay blessures légères ay ay ak dégâts matériels Moreau tey bëri na. Euh, société yoo xam ne ay usines yoo xam ne ñu ngi ci hmm. biir euh, dëkkuwaay yi ñuy ko habité ak population bi. Hmm. Euh, euh, voilà mu nekk euh, lu doy waar yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ni yenn usines yi comme li am fële ca ca Richard Toll ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax comme nu ñuy ñaawloo tamit usines yu bari yu ñu nemmeeku ni Sénégal fi ñu leen implanté waruñ nekk foofu parce que dañu jàpp ne usines yooyu lee bu ñu leen implanté ci bërëb yoo xam ne nit yi dañ fa daal di dëkk mën na indi un problème de santé publique te bari na fii ci Sénégal li am ca Richard Toll. Euh, population bi di alerter te nee nañ sax bu dee euh, jëluñ ci ay matukaay yeneen explosion ñu ngi koy xaar foofule ci compagnie sucrière sénégalaise. Mm. ñu war a jël ñoom seeni matukaay état bi tamit di jël ay matukaayam jël seen responsabilité euh, plutôt gis nga tamit ñu ngi wax ni si taw bu métti bi mu njëkk taw sax ba ñuy déclencher plan Orsec ñu ngi doon wax fii ci aan pratiquement ak saar bi kii bi dafa dem ba jaxasoog ndox mi nga xamante ne mm. askan wi ñu ngi koy naan yaakaar naa ni sax tax ba léegi solution amul parce que temps yi rek yàggul dara maa ngi gis population bi di alerter euh, ci ndox mi nga xam ni ñu ngi koy naan foofu euh, foofule te déggaguma ni euh, jël nañ si mesure am na yu bari temps yi am na ñu ma fi dalaloon ñu bàyyeekoo fële ca ca Kayar ñu ngi wax usine de poisson bi nekk foofule ca Kayar pratiquement nee na ma Ndeye Kumba da ngay ñëw fii nga def reportage wala nga ñëw maanaam ñun suñu mag yëpp dee nañu ñi nga xamante dañu amoon ay maladie chronique usine bi bi mu ñëwee ba implanté ñu koy nooy pratiquement ñoo ñëpp faatu nañ mu ne fii foofu sax boo nekkul jeune sax presque presque doo mën a euh, dékku euh, euh, kii bi nga xamante ni usine bi mi ngi koy def foofu xet gu bon a bon boo xamante ni mm-hmm. vraiment euh, menace la ci san du dootul menace sax parce que ñoom ñu ngi koy dund carrément <laughs> euh, mi ngi leen di écrager mi ngi leen di faat c'était euh, mu ngi kayaat ci usine de poisson bi nga xam ne mm-hmm. moom moo nekk foofu temps yële ci ginnaaw ICS Mboro di nga koy dégg mm-hmm. am na ku ma fa woowoon dafa ma woo di ma interpeller Twitter sax la ma contacter dafa gis sama compte Twitter mu contacter ma ne ma ñun de dañu am benn problème bu mag ba xam di nga si mën a wax askan wi ko moom mooy foofu ca Mboro askan wi ñu ngi dund ay jafe-jafe yu métti ci wàllum santé publique li ko waral ndey kumba moom mooy euh, usine ucs bi euh, kii bi muy dégagé ndox mi ñuy naan baaxatul Euh, xet gi ñuy nooy euh, pratiquement ñëpp feebar nee na foofu boo fa demee maanaam ay sojag yi xam naa li ñu ay corona ñoom dañ dañ si chronique ba pare yeneen xeetu feebar yoo xam ne mu ngi fay am euh, ñoom ñu ngi koy dund te nee amuñ sax ku leen ko waxal amul ku lancé alerte bañ siy daal di jël mesure gis nga collectif bi taxawoon di wax non si wàllum centrale charbon gis nga coow yi am tamit par rapport ak Sococim ak usine ciment bi nekk foofu si peut duma du ma environnementaliste wala di sama mais si sama xam-xam bu gàtt euh, jàpp nañ ni yenn usines yi nga xamante ni dafa am lu ñuy euh, dégager wala yenn usines yu mel noonu ay yuy defar ciment ay pétrole ay gaz ainsi de suite fu ñu nekk maanaam war nañu euh, maanaam war na am distance bu rëy rëy maanaam sax dans les sax si digg àll lañ leen war a teg waaw dañu war a dañ leen war a teg foo xam si àll bala kenn du fa dëkk parce que air bi ñuy dégagé wala seen euh, produit yu ñuy utiliser bu jaxasoog suuf seeg ndox mi maanaam bay sax à un moment donné hmm. waruñ jege fu nit ñi di dëkk mais dañu gis ni c'est c'est c'est le contraire maanaam euh, damay wax léegi euh, responsabilité man dama naan état la parce que usine bu ñëwee bay implanté wu yaakaar naan usine du jékki-jékki rek ñëw daal di euh, teg boppam si digg je sais pas fi nga xamante nit ñi ñoo fa dëkk mm-hmm. donc état moo ko jox autorisation loolu donc damay wax ni responsabilité état la ñu mm-hmm. xoolaat autorisation yi ñuy joxe parce que waa Kayar nee na ñoom lañ leen gëmloo woon que usine bi tout cas si seen wax nax leen ñoom ñi dëkk foofulee ca Kayar parce que liñ leen gëmloo woon ci usine de poisson boobu euh, ba ñu ñoom kontaan si euh, yàkkamte usine bi commencé mais neen usine ba mu tàmbalee ba léegi pratiquement euh, c'est la désastre ñu ngi dund lu métti métti seen wàllu santé publique donc c'est c'est général am na gox yu bëri fii ci Sénégal ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu métti ci wàllum santé publique te dara waralu ko lu dul usines yi ñuy indi ci lieu ñu dëkk loolu man je pense que c'est ce n'est pas normal waruñ ko sax seetaan te man damay wax sax responsabilité bi totalement si état état wu Sénégal la parce que côté boobu moom. ñoom ñoo am faveur di permettre. mais waxuma ay ñuy fekk si usine bi de. kër yi ñooy fekk si usine bi moo tax ma ne la état bi la. premièrement bu dee usine bi yow par exemple yaa fekk si kër yi. état bi la parce que moo lay jox autorisation waaw deuxièmement bu dee askan wi ñoo fekki si usine bi dëkk fa ba ba ba ba le cadre général ah am xamante ne usine moo fa fekk waaw loolu la comme Tosiyali usine hmm. loolu la ma par exemple bu dee usine bi bu usine bi moo fekk si population bi hmm. état la parce que yow yaay autorisé lool. Mm. bu dee askan wi ah, ñoo fekk ji euh, état la parce que ñoom ñoo exactement loolu laa parce que yow bu ñu demee bay lotissé bay tabax ay tout ça c' est la responsabilité de l' état moom moo permettre nit ñi dem di dëkk foofu ci wetu usine bi loolu nag dama jàpp wax ji sax li ko guddal li ko gàttal état moo si war a jël ay matukaay yenn usines yi fu ñuy développé kenn warul dëkk ci digg àll bi la war a ne mm. kenn warul dëkk foofu c' mm-hmm. dangereux aan ainsi de waaw man bala may wax euh, usines yi sax c'est que ñun li ñu dëkkal li euh, te waruñoo dëkkal moom dafa bëri ay euh, ay stade ak ay hôpital ak <laughs> ay marché ay dara la. am problème ak stade. non mais <laughs> c'est mais xam nga tey par exemple tey dafa am loo xam ne xel nanguwu ko tey boo xooloon tey hôpital principal wala hôpital yi nga ne ñoo nekk si xolu Ndakaaru hôpital yoo xam ne. Fann Fann hôpital oto yaa ngi fay jaar. di klaxonné nit ñaa ngi fay yuuxu. Mm. marche ya université marche gaz lacrymogène gaz waaw embouteillage baa nga mel tulleeg male man ngaa yor malade embouteillage bi pour man ay hôpital waroon nañoo mën a dem comme par exemple tey hôpital Touba ñu ko def dañoo dem ba génn dëkk ba. presque ay cinq kilomètres six kilomètres tabax ko foofu. Mm-hmm. xam ne tey dem bu soree tamit. loolu yow ambulance yi sax matul non non non non non non bu soree bu soree man pour man loolu moo gën ndax xamul tey xanaa xamoo tey. par exemple tey mën ngaa jóge Kastoor gii bëgg dem Kër Massar avant nga yegg Kër Massar man ma naa fee yegg Touba ça dépend fi ngay jaar euh, circulation bi wala embouteillage wala nangam. Mhm. li ma bëgg expliquer foofu mooy comme par exemple tey. Euh, dafa am loo xam ne gis nga université Amadou Mahtar Mbow fañ ko tabax sax sa jam ñaari fañ commencé tabax baax na mhm. man dama jàpp ne dafa am infrastructure yoo xam ne dafa war a génn euh, dafa war a génn nit ñi loolu dafay gën a féexal mbir yi tey par exemple tey fu mel ni Sandaga nit ñëpp xëy bàbbee ko dem Sandaga nit ñi di liggéey ci foofu ñii nekk ci biir marché bi loolu yëpp dañ ko waroon a jéem a xalaat Euh, tey boo xoolee tey marché Castor bi mais marché Castor si biir nit ñee ngi dëkk ci biir marché bi tey kenn du mën a dem kenn du mën a dikk mais marché bi euh, xoola xet ga nga xamante ni moo fay nekk xet gu bon gi nga am ci marché bi man pour man dafa am loo xamee dañ ko war a génne dañ ko war a génne spécial dëkk bi euh, am na tey boo demoon tey daral gi gënoon a mag tey Touba nekkoon gaar bu mag biñ ko fay waaj a jëlee mais éleveurs yëpp dañoo lànkoon dañ ne woon daral gi kenn du ko fi jëlee par exemple xam nga bu saa taw foofu day tilim day salte kenn dafa mën a jaar mais biñ ne leen yéen fañ leen di yóbbu mooy gën fii dañu leen a yóbbu foo xamante lañ leen fa daggal ci hectare tabaxal leen ko tey boo demoon tey banque yëpp danga ko fay fekk da nga fay fekk takk der yi ñu taxaw. Hmm. ñu defal leen loolu sénégalais yi ñëpp a koy kaas. waaw da nga xoolal garage pompier. bañ ko fiy jëlee non non xam nga boo ko fay jëlee. non boo ko fay jëlee. dafa am lu fa nga leen di yóbbu dafa war a gën fa leen di jëlee. si si tey par exemple tey fi ma lay wax nii dara lu ndindi gi par exemple rek laa lay wax. Hmm. dara la goo xamante ni foo dëkk da fa fay dem par force. te pourtant dañ ko génne dañ ko génne dëkk bi. Hmm. man pour man loolu war naa mën a am waxtuma laa nag ay usine ak yu mel noonu tey amul amul usine bi nit ñoo ko fekk seeg yooyu yooyu. booy tabax usine yow yaa war a xam ne nit ñi dëkk bi day gën di yaatu. dëkk bi day gën di màgg. yow yaa ko war yow loolu yow yaa ko war a sóoraale. booy defar tey war nga xam ne euh, tey par exemple tey mais waroon nañ see jàngi leçon mën nañoo wax ne Sococim bi ñu koy defar fii boobaag léegi ñaata at la ñu ne boobaag léegi par exemple man na vingt ans. Mhm. ñu ne kon léegi vingt ans ci kanam. normalement vingt waaw ëpp na ko ñu ne léegi vingt ans ci kanam. kon ñaata kilomètre boo doon tabaxaat beneen hôpital wala beneen entreprise beneen industrie usine fan nga ko war a tabax. Hmm. mais ba léegi ñun ñoo ngi gën di ñoo ngi gën a jege te ñi ñoo ngi gën di ñoo ngi gën di dëkk. Hmm. te man pour man loolu waroon nañ ko gën di euh, bàyyi xel li nga xam ne nag moo xew fa li nga xam ne mooy compagnie sucrière sénégalaise mbir la moo xam ne mu doy waar la te duñu wax guléet. Hmm. tey boo demoon Rufisque ñoom ñoo ngi jàmbat lu mel noonu. ndax euh, xam nga ñooñu caaro yeeg yooyu poson loolu poson la. ciment beeg yooyu poson la. xet gu bon beneen mooy dafa am loo xam ne état moo war a nekk arbitre ci diggante eh, euh, usine bi ak population ba fa dëkk maanaam tey am na sax euh, suñu wàllum loi boo xam ne danaan la yow yow mi fi dëkk comme par exemple tey Sococim ñi dëkk fii am na xaal am na loo leen war lool. Mm. moo xam moo xam hôpital la moo xam tey euh, cadre de vie bu bu normal la. yeneen yoo xamante ni mais yooyu boo xoolee presque kenn presque kenn respecté wu ko. Mm-hmm. maanaam ñun suñu dëkkwaay si boppam boo xoolee vraiment si Sénégal gi yëpp waxuma la ay usine mais yeneen yi ñu dëkkandoo sax yooyu ma mënoon naa ñàkk. d'accord Jacques. waaw xam nga loolu mooy vivre avec les industries ni ko gars di waxee te dafa bëri lool li muy indi ni ay yàqute wala sax gàllankoor ci nit ki bokk na ci pollution bi nuisance Euh, bi nga xamante nit ñi dañ koy dugg mais surtout conséquence sanitaire yi mhm. euh, ba ci sax environnement bi parce que boo waxee sanitaire mun nga ci toftal conférence environnementale yi nga xamante mun na ko am ci alam ji ci dindinu mhm. nit ki ci cadre de vie ba ci lépp ba ci sax décor bi parce que da ci am am solo mais loolu dañuy gis ni daf koy faral di indil ay gàllankoor léegi nag lu koy waral en tout cas dama jàpp ni même ci wàllub euh, urbanisme ci boppam jéew ci rôle bu buñ ciy xaar comme ni ko waree muuro waxee sànq parce que quand même euh, foog ñu jël en compte li ñu wax risque yi nga xamante ne moo ci war a tukkee bu ko defee lépp lu ñu ci war a def ci wàllu yoon ci wàllu dëkkuwaay ñu xool nu ñuy def. ba mu méngoo ak soit distance bu ñuy laaj parce que industrie yu mag yooyu normalement euh, ñi seen xam-xam màcc ci wàll yu dañ lay wax dafa war a nekk ci distance tel ak dëkkuwaay te ñi fa war a dëkk mm. nii la ñu war a tabaxee parce que lii lu muy dégager wala parce que machine yi bu yëngatu lii la laaj tabax bi même ci wàllu tabax bi sax booy def ci côté boobu da ngay gis euh, dafay am lu muy laaj mais nag Sénégal farataluñu ko léegi nag yu ci bëri nag il faut nga nangu ni même industrie yooyu dañu bokk ci liy développer urbanisme parce que euh, kii mu ngi wax ay xëy na plus de vingt ans wala sax cinquante ans ba soo ko sim nekkee fële xëy na amaan na kër yi dañ ko soriwoon. mais noo mm. def kër yi jege ko léegi nag euh, loolu constat bi mooy foog nga am état bu foor bu radical ci yenn décisions yi sinon euh, nit ñi en ñoo koy soxla sax parce que même bu fekkee danger la da ngay nekk ci yàpp usine nga dëkk par exemple ngay liggéey Sococim dëkk par exemple Tivaouane mais munoo di xëy chaque jour da ngay jékki-jékki boo gisee kër bu ñu naat mu ngi wetu. mais am na euh, entreprise yu mel noonu dañu am ay logement waaw loolu la mais boo gisee mais du yëpp nag. et puis mm-hmm. am na ñi nga xam ne même ñuy am du ñëpp a fay liggéey a fay mm-hmm. exemple lu mu mën a indi commerçant mun na ne ah Sococim de lii boo fa yóbbu woon par exemple ndox wala galaas dina fay jar. Mm-hmm. mu jékki-jékki def mbaar bu ko jaree bu amee fu mu mun a samp. Euh, kii këram mu samp fa gars ki kii donc de ce fait day dem ba jege donc loolu rek bokk na ci liy attiré wala. liy yokk urbanisme. mais loolu nag pour xeex ko foog état fort quelles que soient les mu ne lii du lii bokkul ak état bi nga xamante ne bu syndicat ne nii mu jóg banque loxoom dafa <laughs> bëgg état bu ci fort léegi nag li nga wax am na ci kii ma daaneel mooy euh, risques yi parce que Sénégal dañuy dund ak ay risques yu mhm. bëri gis nga bu dul usine usines yi sax xëy na lu ndaw la ci parce que ñun nekk ñu wax dëgg yàlla pays bu industrialisé mais dangay xool ñaata nit ñoo nekk ci wetu ay raay ñoo dëkk ci wetu ay raay par exemple. Mhm. ñaata nit yow aéroport bu yox barki Demba Ndiaye lañ koy doog a yóbbul pratiquement l' essentiel des vols fële AIBD mais nit ñi dañu dëkkoon foo xamante ne ñun ñi Mermoz fa la ñu nekkoon. bi nga xamante ne bu avion di wàcc sax nga dégg miir bi di riir imaginel danger yi mu mun a jur Europe mm-hmm. mais ñaata nit ñoo dëkk ci ay suuf haute tension waxuma la waxuma la Ndakaaru mais ma ba ci région yi Ziguinchor feneen nag Saint-Louis ñaata nit ñoo dëkk ci suuf haute tension mm-hmm. wala ñu fay def seen garage wala mu nekk sax ay marché mm-hmm. mais c'est des milliers de personnes ñoo nekk noonu ñi nga xamante Euh, le danger les guette tous les jours wala pour ne pas dire toutes les heures mais ñi ñi woy di fa dëkk état mel ni day jékki-jékki ñu ñëw ñu naan euh, xaw ma euh, opération désencombrement pour justement les xam nga <laughs> boo xoolee tey état bi ñun dañoo waroon am ay ay zone industrielle yu bare bare bëri mais zone industrielle am na waaw après nag non mais Sodadia gi zone industrielle la ñaata kër fi na mais zone industrielle mais zone industrielle xor la <laughs> zone de la zone industrie solida bi solida bi turu zone turu zone industrielle la mais kër yi fii na ngi mais ci biir dëkk bi la nekk rek zone <laughs> zone industrielle boo xam ne ci biir dëkk bi la nekk ci biir ci biir euh, ci biir kër yi pour man waroon nañoo mën a am yeneen zone industrielle yoo xamante ni mhm. peut-être nit ñi danañ fakki mais Sénégal si boppam ñun ni ñu dëkkee boo xoolee ñu ne garage mécanicien yi sax ñun ñoo dëkk. garage mécanicien yi ci biir. atelier yi lépp a jaxasoo ministre bois yeeg. métal tamit parfois parfois tamit gis nga aéroport parce que Jacques mi ngi koy wax bi ñu nekkee côté Wakaam bi nga xam ne ñun aéroport yi su euh, mhm. avion yi su daan wàcc soo nekkee si si studio nii di wax avion yi suy wàcc da ngay taxaw. ba ñu pare nga continuer parce que pour wax la riir bi te ñun sori mais à un moment bi état wu Sénégal waxee ñi dëkkee ci pour des raisons de sécurité dañuy jëlee ñi dëkkee ci côté aéroport boobu gis nga coow li mu juróom exactement moo tax mu ne la parfois tamit c'est c'est un peu compliqué dafa nekk réew moo xam ne neexul jiite mm-hmm. boo ne lii ñu ne waaw dañuy kii xañ suñu par mais pour des raisons de sécurité sax yéen dëkk gaynde yi xam nga parc gaynde yi sax yéen dëkk ann bii taw bu métti ba à un moment sax nee nañ dem nañ ba jaan ya kii rëcc commencé di dugg si biir kër yi ñu dëkkee foofu Jacques xaj yu dafa sax si biir mbedd mi mbedd mi maanaam réew dëkk maanaam ñun suñu dëkkin si bopp moo organisation zéro maanaam organisation zéro d'accord ñu ñëw rek suñu deuxième sujet gendarmerie nationale ñoo def euh, liggéey bu am solo Euh, lu toll ci cent quatre vingt à su yi nga xam ne ay jeux de hasard moo ko tax a jug euh, la ñu euh, daal di teg loxo cinquante yi Kaolack lañ ko jëlee cinquante et yi Saint-Louis quarante-sept Tamba trente-neuf Ziguinchor interpellé nañ lu toll ci dix doomi aadama ñu ci ëpp nag ñu ne ay étranger lañ ak lu ëpp trois millions de francs CFA yi nga xam ne aussi jot nañ ko nangu Jacques sa xalaat tey euh, genre machine yi nga xam ne day favoriser la prolifération de ay salle de jeu ay yoo xam ne ay jeu de hasard xam ne dangay ngay xaalis tey dafa gën a bëri. waaw xam nga bon ñooñu ñuy jàpp moom xëy na mooy ñu tegul ci yoon. Hmm. te ñu tegul ci yoon ci réew mi moom muy ci wàllum commerce muy ci secteur transport muy ci leneen ak leneen ñu ci tegul ci yoon moom wax dëgg yàlla bëri na. loolu nag dañuy woy rek di ko ŋàññ xanaa rek di rafetlu liggéeyu gendarmerie parce que tamit euh, ci loolu lañ koy xaar mais le phénomène comme ni nga ko waxee. Mm. mooy euh, jeu de hasard yi. dafa nekk léegi benn euh, addiction bi nga xamante ne une bonne partie de la société en tout cas dana koy def. mu nekk euh, genre léegi dépendance sax ci mm-hmm. ñenn ñi loolu dafa nekk phénomène buy buy di gën di jéggi dayoo te nit ñi baa ñu ci xel léegi sax du adulte yi parce que booy xool dañ lay wax interdit au moins de dix-huit ans mm-hmm. mais da ngay dem ci kiosque yi nga fekk fa moins de dix ans <laughs> <laughs> nga fekk fa ay moins de dix ans sax ñu koy def mm. euh, façon yi nag dafa bëri am na loterie paris sportif mm-hmm. poker jeu en ligne yooyu yëpp façon bu nekk dafa am waaw bu njëkk nag dañ doon wax chômage bi la mais dëkk yi développé sax ñu ngi koy def fii da ngay ñëw ci ay kees nga romb nga gis enseignant bi taxaw foofu di jouer nga gis nu mu tudd bi nekk fa nga gis menuisier bi nekk fa leneen ak leneen finalement léegi nekkatul Euh, pour chômeurs yi comme ni ko gars yi doon euh, mm-hmm. njorti en tout cas euh, mu nekk euh, lu ñaaw parce que tamit lu muy yàq bëri na di nga gis euh, ay bor nit ñi am fa yaakaar nit ñi da ngay dem ba gis na non ticket bi <laughs> baax na mu dem lebi bor te jeexagul sax mu defi yi bor bi nga xamante ne suba ëllëg lu ndaw moo ko ci loo moo koy yàqal li gars yi di wax naar bi da leen di <laughs> non naar bi lu muy yàq temps yi dafa bëri non det yi euh, conséquences yi dafa bëri xëy ñi seen xam-xam màcc sax ci wàllu dundinu àdduna dañ lay wax sax mun na indi ay hmm. kaaw nu mu tudd ay crime mun na ko jur mun na indi ay kaaw dépression mun na indi sax li nga xamante ne moom mooy ay isolement yooyu yëpp hmm. mun na nekk ci effet yi nga xamante ne moom la jeu de hasard yooyu kon euh, di daal di def en tout cas ñi ñaa ki bàyyi euh, muy gën di law euh, te loolu dama jàpp ne ay mesures yi nga xamante ne waruñu rek yam ci jëlal ci arrêté wala di hmm. nangu machine yi nga xamante ne ñoo ko ñoo koy def te teguñu ci yoon mais phénomène ji boppam la ñu war a parce que tamit jeu de hasard mënoo ko tere carrément mm-hmm. Mm-hmm. yàgg na fi am loolu depuis la nuit des temps wax dëgg yàlla ñi ñaa ngi koy def euh, selon leur façon wala bokk selon euh, euh, leur ère parce que ay jamono day dox mu nekk léegi ci ay machine jamono di dox léegi même ay pari foot sax dégg naa mu ngi am ci ay téléphone ak yooyu alors que bu njëkk da ngay dem ci kiosque bind mais loolu yëpp da nga koy teg ci yoon boo mm. gisee nit ñi mënuñu koo xañ parce que état sax mu ngi koo cautionné mm. LONASE a ngi fii moo koy gérer mais LONASE mm. la la état moo ko fi def di nommé jox leen privilège yu dul jeex ça veut dire que bon ci wàllub diine ñu euh, ñi ci xam dara dañ lay wax euh, yàlla àndu ci mais euh, foog nga nangu tamit lu lépp lu yàlla tere gaa yi ñu ngi koy def ay nitu diine sax ñu ngi def li yàlla tere donc hmm. loolu moom parfois da ngay jékki-jékki xëy na nga gëm wala nga jàpp ni ak ah, garaawul mais de tout les façon gis nañu tamit ñi nga xamante ne xëy na ñu ngi ciy def ñu ciy gis seen bopp man gis naa ko ñu naan gagné na ci ay millions ci ay paris sportif yi bëri na ñu ciy gis seen bopp de ñu ciy gis seen bopp mais léegi naka lañ ko war a defee naka lañ ko encadrer surtout ci parent yi ba du nuire surtout ci euh, éducation ci mhm. seen euh, doom euh, du nuire ci wàllub diine parce que mhm. ki nit bu war a sax julli wala dem jàkka tal na des fois nga gis euh, ci pari bi wala mu sëgg ci ay papillon ba nga jàpp ni bu doon jàng sax lu muy concentré ci match yi wala ci leneen <laughs> wala ci PMI bi bu ko doon concentré ci ay leçon xëy na mu réussir en tout cas mm-hmm. phénomène la bu jara bàyyi xel bu mm-hmm. jara réguler et puis loolu responsabilité aussi bien ci état mais surtout ci parents yi mm-hmm. Abdou Khad waaw euh, euh, GIE moom jàpp naa ne wàllum pari foot ak yu si aju moom wàllum carte Euh, état bi moom moo ko moo ko mooy ndey mbi liggéey daal moo ko organisé ndax LONASE ngi ni wàllum yi moom <laughs> jàpp naa ne fi la fekk baax ñoom nag euh, salle de jeu yi nga xam ne ay euh, salle yi nga xam ne teguwuñ ci yoon ñoom moom la ñu moom la ñu moom la ñu ramasse ñoom la ñu mm-hmm. jàpp maanaam mais nguur gi moom ñëmut a tele tere li nga xamante ni tey mooy carte ndax carte nag lu mu bon bon nguur gi daganal na loo xamante ni tey moo gën a bon ci diine. ndax mhm. nguur gaa ngi ni jox ay jigéen ay carte ñoo xamante ni am nañu sañ-sañ jaay seen bopp. jàpp naa nag nit ki boo ko joxee carte na ko am nga sañ-sañ jaay sa bopp ak ni ma bone rawatina ay ay réew mi nag àtte wuñ ko si si réewum diine aussi. Mhm, euh, te te te wàllum carte moom euh, ñi nga xam ne ñoo ko ëpp ñuy def xale yi dañ see tuuti. Mhm. xale yi nag da leen gis mbuujaa mbuuj yi ñu nekk ci si salle de yooyu waaye ñi nga xamante ni tey ñu bare bari kilifa yi bari seen téléphone la ñuy yor. Mhm. woote <laughs> woote ki nga xamante ni moo ah, nekk ci ci kii bi. mu mu mu joué leen. non ay kilifa nga fay fekk léegi beneen bi mooy xale yi mooy de 18 yi ñoon wax xale yi dañoo am beneen possibilité ndax bu dee ay hmm. si téléphone yi la ñuy yor. téléphone nag boo yoree sa sa bi def transfert d' argent mën nga see jënd. Hmm. mën nga see joué xale yi léegi dañuy <laughs> tëdd. non du question mais mais Jacques man damaa xam ne dañuy dañuy dañuy man mën naa nekk ci bi te du su même su mais non seulement. Abdou Khadre ni ngay ma li ngay wax du xam maîtrise ma ko <laughs> da ngay joué waaw day expliqué la <laughs> xam nga c'est que tey nga ñoo tontu Abdou Khadre euh, Moreau da ngay joué wala doo joué da ngay xaalis wala doo carte xaalis carte ma xaalis man du ma koy carte xaalis ah. ay buloot yi ñii di def sax mënu ma ko ah. comprendre nga mais su ma ko jée man mais man bëgguma carte xaalis hmm. mais euh, am na jeu yoo xam ne dama koy faral def comme eh. par exemple tey lu mel ni Lido waaw mooy li nga xamante ni man sama sama préférence la mais dama la bëgg a wax gis nga xaalis carte lañ la wax xam nga carte xaalis non dama la wax benn affaire ba may fubal mën nga teg xaalis non non ba ma waaw xaalis gi la ba ma si toll tamit doon fubal doon nañ def série penalty di teg ay juróom ak ñaar dërëm <laughs> bi ñuy def bul bul tamit doon nañ égaat doon nañ égaat comme xale ma ma may ñu ñu teg xaalis teg ay bul loolu loolu loolu xale la defuñu ko ko doon def pour pour euh, foo xale la dañ ko doon def pour foo hmm. mais nii ñii ni ko defee même non seulement intéressé wu ma mais war naa ko war naa koo mën a gëstu war naa koo mën a gëstu ba xam li ci baax xam li ci bon ëllëg si bi <laughs> en tant que petit métier waaw non en tant que petit métier xam nga tey Jacques dama la xam benn affaire xanaa xamoo tey Jacques xanaa xamoo tey dama la xam benn gis nga jigéen ñii ngay gis ni ñuy jaay seen bopp parfois man dem naa ci foo xam ne damaa fekk jigéen ñu bari di jaay seen bopp ma dem di waxaale ak jigéen gi di ko di bëgg a xam. exact mujj nag bu fa yegg. non non non non non xam nga Jacques dama lay wax benn affaire gis nga dafa am. non dama lay wax rek ñun tamit. <laughs> waaw waaw non xam nga tax ma wax la loolu. dama ne la man koo xam ne dama ne la damaa dem ci benn endroit boo xam ne bu ñëpp xam si Dakar. ma ànd ak mm-hmm. ñëpp xamuñu. waaw fu ñëpp xam. waaw ñëpp xam xam la laa si jublu. Jacques dama lay wax benn affaire xanaa xamoo xanaa xamoo lu bon soo ko xamul mënoo koo tere. mënoo ko éviter sa njaboot wala say doom. tey boo nekkee ci town bi man damaa nekk ci town bi. kon xam nga lu baax. non. xam lu baax ma bëgg a comprendre leen ma bëgg wax. xam naa fi xam nga man dafa am loo xam ne man soxla mu ko ma ko nettali man dama koo soxlaa xam dama koo soxlaa xam bëgguma ñu naan ma jigéen ñi dañuy jaay seen bopp te boo fayee seen mille wala dara du matte bul dugal sa loxo yow nee nañ baaxul kay bul dem gis te te te xam nga la tey par exemple tey su ma toogoon nit na ma xale yu seen bopp boo leen joxee boo leen joxee cinq mille francs <laughs> ma koo nettali mhm. man maa a xamal sama ah, bopp xibaar yu wér te wóor maay dem waxaale waxaale ah, jërëjëf daaneel ko eh, exemple quand <laughs> même wax uh-huh. nekk ci dëkk bi nekk xale bu góor ko comprendre non seulement dama koy comprendre boo ma joxoon sa téléphone mën naa la jouer sa téléphone mais man bu ma doon jouer dama naa la damay jouer kan moo ci man dara kan moom mooy naan bul jouer bul jouer pari foot yaa moom sa bopp kenn du ma ko ah. wax mais dama la bëgg a wax na la xale yoo xamante ne loolu moo leen sànq hmm. moo leen yàq bëri nay mag yoo xam ne xale xaalis bi hmm. carte bi ñuy carte hmm. moo si leen leen seen liggéey am na ñoo xam ne mën nañoo sàcc seen xaalis yaay mën nga leen a dénk tey mën nga leen dénk place ñu ñu ñu dem ci pari foot wala xaalis buy toog am na ñu koy gagné rek na gis ñu bàyyi seen liggéey léegi jàpp ne du jeex par exemple tey euh, euh, xanaa xamoo ma tax nga détourné xaalis dem Paris Sénégal gis nga paa yi paa yi dem retraite yëpp ñoo ngi ci carte xaalis bi paa yi si bëri paa yi si bëree bëri moo tax ma ne la dañoo waroon a dañu état da xam état xam ne na la waroon def euh. paa boo retraité état bi bañ laa bàyyi maanaam am leneen loo xam ne au moins di ko servir état moo xam conseiller la mhm. moo xam lu mu manti doon au moins di am na entreprise nga xamante ne doo ñëw chaque jour par exemple mais mun nañu ne ci semaine bi nga ñëw benn jour bi nga xam ne y' a moins d' affluence waaw nga am nañ njëriñ ci sa xam xam ci par exemple tey ci euh, grand place ne ko joxee pension mën naa dem ñu dàq ko mu sànni ko yëpp ci pay bi en mu nekk euh, lu doy waar parce que kartum xaalis gi si dëkk bi euh, Euh, bu parce que bu ñëpp kartum xaalis bi si dëkk bi dafa nekk phénomène boo xam dafa jël non dafa jël ampleur bu doy waar gis ni <laughs> na waar en tout cas mel si dëkk bi doy na waar euh, fi nga koy nattee mooy gis nga salle de de yi nga xam ni mhm. dañ ko ubbi un peu partout heure soo rombee nga gis fa xale yi gis fa paa gis fa ñu ne xam naa jigéen ligne rek bu ñu koy def mais euh, fësaguñ si trop euh, mais bariwul en tout cas euh, góor ñi ñoom ñoo fa ëpp muy xale yi muy paa yi muy muy chômeur yi muy ñuy liggéey en tout cas bari na. Hmm. te à un donné maanaam mbir mi jur na ampleur pour man lan moo waral mbir mi daal di jur ampleur moo si gën a am solo lan moo tax ñu jékki-jékki rek daan na fi am kàttum xaalis parce que kii wax na ko LONASE am inci de suite ak yeneen kuréel mais lan moo tax ñu jékki-jékki rek kàttum xaalis bi ampleur bi parce que euh, déjà da ngay wax ni dëkk bi dafa metti jeunes yi amatuñ lu ñu def euh, amatuñ activité amuñ dara da ngay xëy sax dem ci kàttukaayu xaalis bi man noonu laa koy waxee duma ko rafetal naan ay jeu de hasard parce que jeu jeu la mais euh, jeu boo xam ne da nga ciy war a gañe xaalis kartum xaalis lañ koy wax moo xam nag façon de jeu bi ñuy def da gis ni jeunes yu bëri di chômer amuñ lu ñu def dañuy xëy dem ci ci ci salle de jeu yi dem toog fa peut-être ñu am benn somme euh, dem xool naka la ñuy carte xaalis ba mbir mi jural leen euh, beneen somme euh, loolu bokk na ci ak tamit bëgg am am bu gaaw bi parce que dañ naan la mais telle personne fii def na fi pari foot gagné na fi pari foot 10 million yow soo toogee waa nga gis benn groupe bu xale yi góor yuy toog di naan attaaye kenn dem def si benn pari foot gagné 10 millions mais ñeneen ñëpp dañuy xëy dem dégg laa la non man Euh, si suñ koñ la dëkk euh, ñaar wala ñetti kër moo nekk suñ diggante mais dama ñëw ñu ne ma kii dafa doon pari foot gagné si mhm. tant de millions mhm. mu nekk lu concret defar na seen kër jënd na si oto investir na si nii mhm. mais xale góor yi si koñ yëpp euh, survie <laughs> ah, c'est fini c'est fini ñëppay def man mi waaw jigéen ñi góor ñëppay def jigéen jënd te te li si gën a doy waar mooy bu njëkk ba sax chômeur yeeg pas yu retraité yi nga fa doon gis amuñ lu ñu def ak xale yi boo jaaboo policier baag gendarme baag léegi nag maanaam ñiy liggéey ñiy liggéey laa ñoo dàq carte xaalis man am na benn jour ma may woo di wax ak kenn mu ne man de sama jëkkër ji dafa carte xaalis ba dof te kooku enseignant bu mag la plein mais dégg naa lu mu yor da koy carte xaalis nee na dem na ba xam nga te carte xaalis li si bon dinaa si ñëw dem na ba portable sax nee na moo jabar ji neen su yoree portable da koy denc parce que bu bëggee carte xaalis amul kii day jaay portable dem carte ko xaalis parce que dof na parce que dégg na tel la ci na personne gagné na si dix vingt ñu teg si seen bët nii c'est fini mais carte xaalis euh, d'une part mën nañ wax mënuñ ko tere mais d'autre part à un moment donné baaxul parce que di nga gis kàttkatu xaalis boo xam ne day jaay jaay ba la mu am yëpp da kay jaay dem kàtt xaalis pour gagner alors que yow kenn ki gagner ci koñ bi tax jeunes yëpp daal di transformer seen bopp ay kàttkatu xaalis <laughs> mais imagine toi Euh, benn un million de personnes ñooy dugal xaalis ñu gañeel si benn nit wala ñaar jox ko mais yow kañ ngay gañe léegi nag ba pare bëgg am bu gaaw bi léegi les jeunes yeeg nit mag liggéey liggéeykat lu ñu bëgg taf taf nekk millionnaire waaw soo waxee ñu ne xaalis kenn du ko liggéey waa xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti boo fi nekkee di liggéey doo am million doo am oto doo am kër léegi système bi mooy lan damay carte ji xaalis comme que sàmba mi si koñ bi carte na xaalis ba gañe fi quinze millions lii dootul ay naxaate dëgg la mhm. à un moment donné ak ampleur bu mu jur nii euh, da ngay daal di tiit parce que jeunes yi dootuñ concentré wu seen jàng. Mm-hmm. liggéeykat di nga gis buñ fay salaire am mu dem carte ko xaalis. en tout mm-hmm. cas euh, si benn ampleur bi mën nañ ko accepter mais ampleur bu muy jël nii nii nii je pense que euh, jar nañu xoolaat kartum xaalis bi naka lañ koy organiser parce que ëpp na am ñoom dañuy portable jack bi sax bu ko tegee fii ñu dem jaay ko dem carte xaalis dem surtout pari foot bi nag gars yi dof nañ ndax pari dañuy waxtaanee politique euh, waa PS ñu ci mel ni ñoom Abdoulaye Gallo Diaw Amadou Sow ak ñeneen amal nañ euh, point de presse démb donc ñoom lu ñu bëgg rek moo di euh, ñu am plus de reconnaissance ak plus de respect seen parti socialiste au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar ndax nee nañu lu ëpp fukki at ñi ngi nii ñuy ànd ak Benno te dafa mel ni ñoom seen parti PS dafa mel ni lu gën a suuxee donc euh, dañuy dànkaafu rek président Macky Sall euh, mu am reconnaissance ci ñoom waaye itam seen i njiit ndax euh, ñi ngi wax tudduñu tur bi mais nee nañ am nañ seen responsable boo xam ne dund na ñett génération président. <laughs> bu ñëw dina nekk ministre ak yeneen yeneen jot na nee na. ñu jox voilà jot na tam nee na ñu jox ndaw ñi yenn responsabilité. Mm-hmm. te mag yi daal di jël retraite ñu daal di dem toog Abdou Khadre sa xalaat. waaw xam nga Macky Sall moom wax dëgg yàlla li ko dese si mandat bi dina ci dund euh, fitna boo xam ne fitna bu méttee méttee métti la <laughs> ndax ñi nga xam ne tey euh, ñooy parti socialiste Macky Sall tegu leen woon ay nit àndutoon ak ñoom ànd nawle ci euh, neuf ans xaw ma dix ans yëpp waaye nag li si des moom dina fas yéene ànd ak ñoom ci ànd nawle moom maanaam deux moins de deux ans yi am na ñooy député am na ñuy député ndax dañ koo jekk moo tax gis nga Sylvie gis nga lii xew nii assemblée sax loolu lu baax la gis <laughs> wallaay doole bopp baaxut. moo tax gis nga nii ñu xañee Macky Sall doole ju ëpp. Hmm. loolu day tax sax Macky Sall mën a nekk nit. te dafay baax ci Macky te dafay xam àdduna te ñàkk gun nguur. <laughs> dafay xam àdduna te ñàkk gun nguur gi. ndax fi ne nii jàppoon na ne faalewul Macky Sall faalewut ku yàlla bind. soo ko amelee njariñ ndax parti socialiste seen cinq député yooyu. maanaam mel na ni valeur bi mel na ni soixante xaw ma nàngam <laughs> député yi benn bokk yaakaar am. Hmm. te parti socialiste seen frustration bi dafa yàgg. woon. fu ñu téye Macky Sall ak fu ñu ko jekku léegi nag bu leen joxul ay ay ndax ne ni ñoo ñu def conférence de presse amaana sax ay mag ñoo nekk seen ginnaaw ndax euh, ñoo nekk seen ginnaaw di leen di manipuler te Macky Sall bu taxawalee gouvernement bi parti socialiste yi ñoom gisuñu seen bopp da ngay gis ñu tàmbali di wane seen euh, seen frustration euh, ak seen ak seen ak seen naqar te loolu Macky Sall ma ngi koy sóoraale bu baax a baax si assemblée national ak ci gouvernement bii nga xamante ni tey euh, dañ leen fa teg te même bu doon bu dul loolu sax ñoom dafa am ministre yoo xam ne ñoom jàpp nañu ne ay Aliou Ndoye ak Serigne bay Thiam ak ñooñu ak Aminata Mbengue Ndiaye dañoo yàgg daal ñoo ngi leen di dañoo war a seet ñeneen ci biir parti socialiste ndax ñooñu kese. Mhm. nekkuñu fa nekkuñu parti socialiste parti socialiste nag ñoom. Euh, li tax ma ne la Macky Sall àndut ak ñoom ànd nawle boo xooleen tey maanaam ci élection législative yële jàll li amoon ci nombre de députés presque euh, maanaam ni leen suqee daal moo ñaaw maanaam wàññi nañ maire yi parti socialiste amoon di ko wàññi ndànk-ndànk lañ amoon ci député ñu koy wàññi ndànk-ndànk xoola parti socialiste parti bu toll ni parti socialiste yow ngay am cinq députés ngay nangu Macky Sall di la sédd cinq députés waaye nag ñoom seen cinq députés yooyu mën nañ see xeex ak ma Sall moo tax fi ne nii gis nga assemblée nationale bii di euh, bii di ñëw nii assemblée national euh, boo xamante ni lu ne mën nañ ko see lu ne mën nañ ko se dégg comme ni ma la ni ma la waxoon rek mooy euh, ñii ñoo ngi doog di am ngànnaay bu ñu defee euh, pression ci Macky mais vrai que wane nañ nag ñoom seen euh, seen seen seen waye di wala seen ñàkk fayda ñenn ci parti socialiste demoon nañ si élection locale yi sax am na si ay liste parallèle yoo xamante ni ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko créé woon parti mm. socialiste ndax dugaloon nañ li nga xam ne mooy caution mm. waaye Aminata Mbengue Ndiaye da leen a jaay maanaam presque mën nañoo wax jaay leen def moom ma ngay nguur jox nañ ko am institution ñoom nag nee nañu bu dee tey jël nañu institution boobu jox ko Pape Diop. Mm. danañu fas yéene jàmmarloo ak Macky Sall. Mm. léegi nag euh, li ci kanam li ci kanam rawati bët. loolu mm-hmm. waaw man xam nga man politicien Sénégal nag dama leen a xawul gëm parce que chaque jour ma wax la ko fii ñoom dañuy teg seen i plan seen i Euh, parti socialiste tey jii bu fekkee ñoom ñu ngi yëngu-yëngal c'est parce que euh, peut-être c'est le moment du du partage du gato ñu ngi partage gato bi am na ñoo xam ne boobu ba léegi ñu ngi patienter gisuñ seen bopp ci gato boobu la joxuñ leen seen wàll léegi nag ñu toog ba heure bii nag euh, waa seen wàll quoi maanaam politicien maanaam moom moom intérim daal intérim lay lijjanti lan la mën a am si ànd bi ba ñuy ànd ak Macky Sall ànduñu ak Macky Sall pour liggéey Sénégal non jeune pense pas mais da ngay ànd ak Macky Sall parce que moo toog ci bopp réew mi su ma àndee moom mën nañu am post bi mën nañu am privilège bi mën nañu am noonu la ñuy xalaatee c'est c'est c'est c'est grave parce que booy def politique pour man euh, déjà nee naa kuy politique war nga am sa liggéey am looy suturloo mais sooy def politique euh, c'est pour nga mën a apporter dara sa réew mais pas pour ngay xool sa réew dal apporter mais problème bi ñuy gis ni yëpp parce que ñoom buñ ñu àndoon ak Macky Sall pour liggéey Sénégal kese xam nga tey jii duñ taxaw fii naan foog parti bi nii ñu puus nii. gisuñ mhm. suñ bopp te yaa ngi gis ñu ngi wax HCCT sûrement renouvellement dina am dina am bopp yu tëb léegi comme kon ñoom gis foog ñu yëngu-yëngal pour am ay poste si HCCT bi. Mhm. pour peut-être gis seen bopp euh, ci assemblée nationale ainsi de suite ak tamit gouvernement plutôt bu bees bi. Mhm. donc ñoom ànduñ kon ak Macky Sall pour liggéey Sénégal dañoo ànd ak Macky Sall pour ñu jox leen seen wàll parce que ñi nga xam ne seen gat jox nañ leen dagg nañ si gato bi mhm. part bu ngand jox leen ñu ngi ne neem waaw dañuy àndandoo gañeendoo géré déggoo ma de dégg maanaam dañuy ñi nga xam ne si parti socialiste Macky dagg na si gato bi jox leen ñu lekk est-ce que dégg nga leen Sylvie ñu wax fii ñuy yëng yënga-yënga mooy ñu kiiw waaw pour man nag ñooñu c'est trop tard parce que instant bi waa parti socialiste bu ñuy wax kenn du leen faale peut-être ku mën a kaas ci parti socialiste ci doxalinam walla mag ñi nañu jox place gune yi koo si mën a gëm man ku ma si mën a gëm. mooy ah, Barthélémy Dias laa mën a gëm. mag yi dañ fee nekk non non fi may waxee maanaam ñii nii ànd ak ñoom dañoo dañoo rey seen parti ba pare. dama mhm. ne la Macky Sall waaw loolu laa la. Macky Sall ñi mu àndal nee naa la ku dugg Benno Bokk Yaakaar cuub nañ la marron beige <laughs> yow sa parti existé tout maanaam parti socialiste bii ngay wax ça uh-huh. n'existe plus euh, ñenn nga mën a gëm seen combat ñi doon wax nañu changer parti bi mag ñi nañu jox place yi gune yi à un moment mën nañ ko nangu ku mel ni Barthélémy Dias moo mën a wax loolu ak peut-être ñoom Malick Nawel sekk ñi fippi mm. woon si bu njëkk ba nga gëm leen mais ñi nga xam dañoo àndoon nag euh, beneen parti socialiste bi mm. jël seen bopp cuub ko marron beige nekkatul vert blanc <laughs> euh, ñoom bu ñu taxawee tey jii di kaas damay yaakaar dañoo bëgg dañoo jotagul seen wàll ci gato bi mais ñoom gëmuñ part bi parce que bu buñ gëmoon parti bi mm-hmm. duñ doxalee ñi ñi gëmoon parti socialiste di xeex bañ génne leen si moom mooy Barthélemy Diaz man côté boobu moom laa gëm mais mm-hmm. ñeneen ñi nekk fii yow 18 mois des ci nguur nga naa da ngay kaas xawma li yëg li yëg li mais le parti socialiste n'existe plus ay marron beige lañu waa damay ànd ak yow pour nga mm-hmm. joxe ma sama wàll ci gâteau bi aw ma sama wàll ci gâteau bi foog ma kaas mais doon àndandoo gañeendoo géréendoo. lekkandoo. waaw mais géréendoo kay mooy. kenn ku ne nga jox loo géré. est-ce que Sylvie xam nga dara. dama ne la ñoom bañ duggee euh, rejoindre le président Macky Sall liggéey ak moom lañ leen cuub marron beige mhm. parti socialiste boobu existé tul xam nga bi mhm. existé bu ku ñu mën a gëm mhm. si révolution wala li ñu doon kaas mooy lu si demee ni que ñoom Barthélémy Dias ak peut Khalifa Sall peut ñoom nga mën a gëm si lool mais actuellement ñii kaas nii nii nii dama ne la kaasuñ pour parti bi gëmul gëmatuñ sax kaat parti bi xam nga lu ñuy kaas pour dugg ay HCCT di kaas pour euh, euh, bokk si gouvernement xam nañ ni nguuru Macky Sall jeexal nañ ñu xool nu ñuy génnee pour samp seen nënd mais dama ne même bu ñu génnee samp seen nënd dama ne la parti socialiste bi jeex na jeex na takk jeex na. Mhm. il est il ñoom cuub nañ leen Benno Bokk Yaakaar bu yàgg. waaw xam nga parti socialiste moom mm, parti la bi nga xamante ni mu ñàkk dafa bëri. le PS a vraiment beaucoup perdu. Mhm. Euh, ci wàllu euh, politique. en tout cas euh, il y a plus d'animation même boo xool à la base. parti socialiste ban section nga déggee ñu naan la léegi mu ngi def nii alors que euh, amoon na lépp école du parti ak yeneen mais lan nga dégg léegi booy dégg rek xanaa APR la. mais buy ñoom bu dul seen réunion bureau politique yi ñuy def fii ci mm-hmm. kii bi nga xamante ne lim bi parfois da naan ndax ñii kese la wala conférence de presse de temps en temps bi nga xamante ne c'est un peu euh, dafa am ci contexte yi tax ñu daal di koy def comme bi mais sinon du parti bi nga xamante ne léegi mu ngi mu ngi dund et puis depuis 2012 après chaque élection da ngay gis ni parti bi dafay perdre en volume ji wax na ko même boo xoolee ci nombre de ministres au début en 2012 il y avait plusieurs mais léegi ñaata ñoo fa des ñaar Serigne Mbaye Thiam Alioune Ndoye bu yàggee xam naa ñoom sax kenn dina génn ba dootuñu exister est-ce que sax dinañu fa dinañ fa nekkaat ñoom ñaar ñooñu ci euh, prochain gouvernement bi loolu c'est des questions à se poser mm. mais loolu nag euh, ñoo ko defal seen bopp parce que mm. même respect bu ñuy wax nii ak gëdd gi ñu daal di leen wékk loolu yaa koy njëkk def sa bopp respect moom boo buggee ñu respecté yaa koy njëkk a jox sa bopp. ba mhm. pare nit ñi doog la respecté. Mhm. léegi nag joxuñu ko seen bopp góoma ni euh, Macky Sall dina généré ba foofu ba jébbal leen loolu yëpp mhm. léegi nag booy xool ñoom à un moment donné même investiture euh, locale yi passé fii la ñeneen ñoom wilaan ak ñooñu jógoon commencé yëglu mais après Aminata ngi Ndiaye ak ñooñu ñooñu waat na leen ba leen ko ñu teg seen xeex boobu yëpp ci suuf. seen liste ñu waajaloon yëpp caution bu ñu tegoon lépp ñu teg ko ci suuf. Macky Sall xool investir nu mu ko neexee jël ñoom Abdoulaye Sow jox ko mairie ba ñoo ñëpp mu investir nu mu ko neexee. Mm-hmm. mais parti bu toll ni parti socialiste le premier parti. 40 ans au pouvoir yow nga ñëw. doo bokk ci élection parce que da nga ànd ak ku ñu naan Macky Sall parce que da nga bokk ci li ñuy naan Benno Bokk Yaakaar 2012 2019 la xewee première fois dans l'histoire parti socialiste amul candidat ci mm-hmm. présidentiel ñu bàyyi ko mu dee mais kañ la parti bi gëj a am congrès li leen dal moo dal Euh, AFP AFP seen congrès je pense man dernier congrès hmm. je l'ai couvert en tant que stagiaire ci CICES <laughs> euh, yàgg yàgg yoo hmm. xamante ne seen dernier congrès mais booba parti socialiste moom waxaale ma ko hmm. seen dernier congrès man mii jeune kii mënuma la wax kañ la avant Tanor Dieng ndem si yàlla ndeysaan ba léegi kañ la ñu gëj def congrès normalement sax ba secrétaire général parti bi euh, doo àdduna ñi eh, kii am na Aminata Mbengue Ndiaye eh, daf ko dafa nekk rek eh, ci diirum nëgëndiku mais boobu ak léegi déggoo sax ñu fixé le congrès maanaam léegi noonu lañ ko fas yéene gérer ba xëy na après régime bi ñu doog a xool nu ñuy réorganiser loolu rek dafay rey parti dafa mel ni kon lu ñuy wax équipe rek équipe de football xanaa da def entraînement def ay stage mhm. pré saison dafay leneen def ay mercato def mhm. mais amoo benn programme nga toog rek mhm. parce que da nga bokk ci benn bokk yaakaar moom xam naa ne dina dem ñoo ko defal seen bopp benn journal ñu ne Macky Sall nee na bu kenn voyagé asam xam nga gis nga loolu fi ne nii loolu rek dafa am solo te baax maanaam fi ne nii Macky Sall bu njëkk yoonam nekkul ci député buy voyagé ak député buy euh, bu bu bu bu soj ak Macky Sall a lijjanti mhm. waaye fi mu ngi lijjanti député yi voyagé nañoo ak voyagé wu euh, waaw fi nii leer na la député bi def trafic phobie boo ji bëggee démissionné sax wala kenn du la bàyyi kenn du la tëj ci <laughs> kaso bi ndax ndax amul ma euh, ñaari ñaari député yi amoon problème bañ tëj leen mhm. en problème ci Macky Sall. kenn du leen tëj waaw c'est loolu c'est loolu nag euh, kenn xamul lu muy nuru fii nii. lu waay neex def doy na waar. ñu wax rek suñu quatrième sujet ak euh, décès imam euh, ba daxa ndaw démb ca hôpital fan gannaaw feebar bu ndaw bi nga xam ne moo ko tëraloon internet yi sax jotoon nañ def benn collecte ngir ñu mën koo jàppale jotoon nañ dajale lu toll ci quinze millions. de francs CFA waaye yàlla moo mujjee def euh, li gën euh, daal di koy moom euh, tey Imam Ndao tey tey bu ko ñëpp xamee Jacques bokk na ci liñ ko doon tuumaal mooy hmm. waa wàllum terroriste hmm. ànd ak bokk arab Imam Ndao moom d'abord dañuy jaale rek ay mbokkam jege ñaale ma ki soppewam rawatina ñu dëkk ca Kaolack gi moo fekk baax. Hmm. ni ñu ko waxee mu nekkoon tamit d'abord avant loolu nit ku ñu ràññee ci wàllum diine. ci ay pression ak yooyu. kon euh, mu nekk ab perte ngir sénégalais ngir umma islamique tamit ñu koy jaal di ñaan kon euh, suuf sedd si kawam ni nga koy waxee imam Alioune Badara ndaw en tout cas li tax mu fës dëgg-dëgg sénégalais ràññee ko ba tey boo gisee décès bi ñëpp ko teel a yëg ci réseaux sociaux ak ñoom yëpp mooy euh, il a été un peu le visage d'un feuilleton judiciaire inédit au Sénégal bi nga xamante ne dana ko teg ci ndaddu ab imam bi nga xamante ne luñ ko doon tuumal dafa xaw a ñàng lool wàllu apologie du terrorisme ak kon euh, association de malfaiteurs mu nekk euh, mbir mu inédit parce que tamit imam la mais tamit durée procès bi boo xoolee defoon na trois mois. Mm-hmm. laata ñu koy jugé coupable seulement maintenant euh, de euh, xawma détention d'armes illégales ak yooyu lañ ko mujj ci te loolu sax c'est à voir parce que même ay am dañ ko doon bañ ne dañuy def kon li nga xamante ni moom mooy appel. mu nekkoon lu métti loolu tamit bokk na peut-être euh, ci euh, l'une des tâches li nga xamante ne ba tey ñu ngi ko ci tuumal euh, justice ak njiiti mi Macky Sall parce que booy xool ci reñu Macky dossier yooyu ñoo ko ci gën a xaw a takkal ñu ci bëri am na liñ ko ciy xoolee dossier Karim ba tey c'est lié à la politique ak la justice dossier Khalifa Sall ñu mm. jàpp c'est lié à la politique et la justice dossier Imam Ndaw tey ba tey justice feeñ ci donc loolu mu nekkoon lu ñaam même ba si sax mbirub euh, ndem si yàlla Cheikh Béthio Thioune mais mbiru Imam Ndaw moom li tax mu gën a ñaaw mooy parce que liñ ko doon toppee yëpp ba au finish trois mois ci procès bokkul sax ak li nga xamante ne mu ngi ko nekk mandat de dépôt euh, loolu yëpp euh, nit ki mu dund ko moom sax il a été fort parce que bam ba mu génnee gis nañu réaction mat gi mu desee ak tamit euh, il a gardé la tête sur les épaules mu continuer sax dem delluwaat ca li mu nekkee woon ba final dernièrement sax boo koy dégg ci ay sortiom da ngay foog ni dundul yenn yi. Mm-hmm. alors que yenn bu ñu la ko toppee surtout lu mel ni terrorisme. ci réew mu mel ni Sénégal ak yeneen association de malfaiteurs ñu xam la ci ngay nitu diine loolu war naa mën a am lu muy wàññi ci ñoo ci yow mais gis nañu euh, il a été vraiment fort. loolu nag euh, lu jar a bàyyi xel la mu nar a nekk rek exemple d'humilité que des fois nattu parfois tamit mun na dab nit loolu warul tax nga bàyyi ci li nga nekkee woon wala warul tax nga jeng warul tax nga soppeeku rek nekk benn nit ba di dund ak een ak yooyu moo tax man exemple boobu laay jàpp ci moom nattu dab na ko waaye teewul delluwaat na nekk imam ndaw mu continuer li mu nekkee ba nee ñu ab wopp moo ko dab euh, mu daal di ñàkk bakkanam xanaa di fédélaat rek euh, ci suñu kaddu mm-hmm. Rewmi FM Ndial ngir kon Sénégal gi yëpp. jaajëf Abdou Khadre. waaw imaam euh, Alioune Badara ndaw ñu koy ñaanal yàlla suñ boroom sotti ko yërmande euh, en tout cas daal euh, li ma mën a wax mooy remarque nañ si Sénégal ne ñu baree bare bu ñu leen tëjee si kaso yi bu ñu leen bàyyee dañuy xaw a feebar dañuy feebar xaw ma nag suñ kaso yi moo metti xaw ma lu tax <laughs> loolu vraiment lu ma lu ma seetlu la si baree bari. ndax mm. Cheikh Béthio même bi mu feebaree. ay avocat yàgg nañoo sàkk pour ñu yóbbu ko faji ko yooyu te mhm. problème bu aussi daf ci daf ci faral di am. kaa yu mujj Hissène Habré Hissène Habré mhm. ak yeneen yeneen. léegi euh, Alioune Badara Ndao man damaa dem ci ATM Alioune Badara ndaw mii mais gis nga ba Badara ndaw Sénégal ñoo yéex a fa ñoo gaaw a fàtte mais gis nga kaaw ba dara ndaw bu doon Sénégal Sénégal yi du ñu gaaw fàtte am na presse boo xam ne Sénégal yi dootuñu leen liirati. gis nga man déggoon naa ci loo xam ne man dama xaw a dañ kumpa ci benn mbir yi man dama lenn dama koy bëgg a fekkee li ñu doon wax ci ba dara Ndao moo ko doon liir ci presse bi di ko dégg ak par rapport man bi ma demee trois jours ñu àtte ko ma déglu ko ak fetal yi ñu doon wax ak Kalashnikov ba bam naan leen ba muy génn ne na fetalu tëgg la mooy li ñax fetalu tëgg mhm. fetal goo xamante ni sax baaxul li ñu doon wax naan ay ay la la lam set ak lu nay waxoon maanaam yi ñu doon wax noonu ak ni mu mm-hmm. demee ak li ma seetaan mm-hmm. man dama ne man man du lii laa doon dégg mm-hmm. ci ci ci Alioune Badara Ndao boo ko doon déglu ci revue de presse yeeg journaux yi ni ñu ko doon waxee vraiment loolu dafa nekkoon loo xam ne lu garaaw a garaaw a garaaw la euh, beneen bi mooy Alioune Badara Ndao dafa dafa dafa yàgg wax bi mu génnee ci kaso bi wax na métital yi nga xam ne dund na ko ci biir kaso yéen xam ngeen ne sunu administration pénitentiaire ak sunu police ak sunu gendarmerie ku leen tuumaal ñu génne communiqué ku leen tuumaal waxal leen dara ngeen gis ñu génne communiqué di weddi loolu moom yéen xam ngeen ko te Alioune Badara wax na tuum wax na jafe-jafe yi mu am si kaso ni ñu ko toroxale te man gisuma fenn fu administration pénitentiaire génne weddi loolu mu nekk mbir moo xam mbir mu doy waar la Alioune Badara Ndaw man fekk na gis naa kilifa yu bari tribunal ñu ne moo leen jàngal alxuraan Alioune Ndaw nit ñi euh, discours yi mi def nii la nit ñi xam mais ñi mu jàngal alxuraan jàngal leen xam-xam ci àdduna ba ñuy jàngalee waat kenn xamul nan la toll te loolu yàlla mënu ko ko ñàkk bañ a fay. Hmm. léegi nag euh, boo bëggee torox rek toroxanal nit ku baax. dafa am nit ñoo xam ne nit ñoo xam ne mën nañ leen jàpp ay nitu yàlla mooy ñoo xam ne seen diggante ak yàlla ñoo ngi góor góorgóorlu seen kem kàttan te Alioune Badara Ndaw man témoignage boobu laa mën a laa mën a def ci moom Alioune Badara Ndaw hmm. te nag nit ki soo ko toroxalee man gis naa ne dañ ko toroxal ndax toroxal nit weesuwul nga tëj nit ay at ci kaso génn na ko defoo dara te yow boo ko tëjee si kaso sax ba mu génn yow waroon nga am ngor jéem ko sax nga ne naa ko lijjante faj ko au moins. ndax gis naa gis naa démb gars di def euh, ay. dañ ko def ket. ket dañ doon def ket pour faj ko. pour hmm. Alioune dara ndaw hmm. ay euh, am na ñu def ket pour faj ko hmm. état laa la wax boo tëjee nit ki ay at. mu ne da koo toroxal ba mu feebar xanaa nga mën koo jël en charge mais Alioune Badara Ndao képp ko xam nit bi mu génnee si kaso bi rek ku ko xool xam ne dafa feebar bien vrai am na feebar yoo xam ne nit ki mën na koo am di doxaaleeg moom mais boo duggee ci kaso bi feebar yi pour mu feeñ dafa yomb mais état waroon na see mën a jël ay matukaay mais nañ koo tëj ay at bàyyi ko mu dem état jéemu koo faj man gis naa ci Alioune Badara Ndao ma ne man li ma jàpp mooy ci euh, tey euh, toroxal nañ ko wala doon nañ ko jéem a toroxal yàlla nag euh, nit ki fi mu war a jaar mënu faa ñàkk euh, mënu faa ñàkk bañ a jaar mais soo defee ay ñaawteef ci nit yow di nga xam ne def ngay ñaawteef ci nit kooku tey làqu na. Hmm, le préjudice bi. làqu na yow ëllëg di nga dajeek yàlla sunu borom àttekat bu mag bi. Mhm. te dafa am ñoo xam ne boo leen tooñee ci àdduna. jàpp ne yàlla dalay xam nga am na ñoo xam ne da leen di tooñ tey gis ko tey. Mhm. tooñ tey gis ko suba. am na ñoo xam ne mënoo leen a tooñ ci sa dund yow même da ko subir. ci sa dund nit ñi di si teg bët te dama jàpp ne ay nit ñu baax ñoo xam ne kenn wala leen toroxal te Alioune Badara Ndao ci nit ñooñu la la la la bokk te jàpp naa ne aussi Sénégal dinañu ko yeex fàtte te jàngal nay ay nit ñoo xam ne li mu créé créé si ay daara ak di ak di ak ak ak bay du dundee aw di dundee hmm. bu ñu demee ma di ko ketal ak tuuma yañ ko fi gàll vraiment nekk na mbir moo xam ne euh, faatu gi tiis na waaye ñu koy ñaanal yàlla suñu borom euh, sotti ko yërmande hmm. voilà mu nekk euh, nouvelle bu naqaree naqari kon ñuy euh, euh, jaale waa Sénégal yëpp parce que imam Alioune Badara Ndao imam Alioune Badara Ndao Sénégal yëpp la ni ñu ko xamee mooy bi mu amee jafe ay justice gis nañ sénégalais yi ni ñu taxawee woon jàpp ni ki di ay imam Alioune Badara Ndao il est victime d'injustice après nag taxawaay boobu gis nga lim jur ba ñu setal ko ba mu génn imam Alioune Badara li may wax sànq si kaso yi kaso Sénégal chaque jour ma wax ko maanaam maanaam kaso dafa dafay jàpp nit ki pour defaraat ko génne ko mu mën a bokkaat ci société bi mais kasu senegal euh, defarul nit yi dafay yàq nit euh, kasu Sénégal ñu bëri dugg nañ fa euh, génn fa dal di feebar te tamit du ñëpp encore si Abdou Khadre Seck li mu wax du ñëpp ñoo àttan kaso parfois sax mag ñi doon nañ wax gor moomul kaso wax jooj dafa ëmb lu baree bari mm-hmm. donc gor moomul kaso ça ne pas dire góor du dugg kaso mais du ñëpp ñoo mën dékku li nga xamante ni moo am ci biir kaso bi moo tax souvent gis nañ ci cas yu ñu bari bu ñu leen tëjee euh, génnee leen dootuñ normal dootuñu mm. wér ainsi de suite donc loolu euh, c'est tout à fait normal Imam Alioune Badara Ndao boo demee euh, Kaolack bokk na ci ñi ñu gën a respecté bari fa ay taalibe jox ko gëdd en tout cas li tax nag Imam Badara Ndao fës sax ba ba ñu indil ko ay jafe-jafe moom mooy prêche yi nga xamante ni doon na ko def fële ca ca ca Kaolack ñu gis ni Imam Alioune Badara ndaw yamul woon ci prêche comme rek imam yi niñ koy koy defee ñëw def seen prêche wala julli dem toogaat seen kër mais imam Alioune Badara Ndao était un imam révolutionnaire maanaam euh, parfois sax nga xaw ko dëgg euh, doon nañ ko xaw a comparé ak imam Dicko bu Mali ainsi de suite c'était un révolutionnaire maanaam nitu diine la euh, mais mun nañ ko jàppee révolutionnaire mais dafa amoon taxawaay di dal peut-être wala di indi di def ay prêche yoo xam ne arrangé wul nguur gi di def ay prêche yoo xamante ni neexul lobby niche yoo xamante ni euh, neexul lobby franc yi te xam nga ne ñooñu Sylvie dañoo am doole. Mhm. Euh, kuy xeex ak ñoom pour nga mucc ca c'est c'est c'est tout un problème te gis nga bu fekkee da nga nekk révolutionnaire ak domaine bu mu mënti nekk même si domaine bii ñun ñuy taskatu xabaar di toog ci micro bi euh, di wax yenn yi wala di toog ci micro bi di mën a toucher yenn thèmes yi xamal ni yow tu es loolu moo dal imam Alioune Badara Ndao si ay prêche da doon laal lobby yi di ko ci diine rek xalaatul xaalis xalaatul poste xalaatul leneen parce qu'on a vu ici des imams yoo xamante ni vraiment entre guillemets loolu te imam Badi ah, Alioune Badara Ndao waaw ah. euh, am na ñu fi laaj salaire am na ñoo xam ni sax <laughs> woote nañ fi ne nañu votel Abdoulaye Diouf Sarr et tout donc imam Alioune Badara Ndao bokkul woon ak ñooñu moo taxoon waa Kaolack respecté ko parce que Kaolack la dëkk li tax léegi Sénégal jot ci imam Aliou Badara ndaw mhm. mooy prêche yooyu mu doon def mhm. di di xarab góor jigéen ñi di dal seen kaw di di leen feeñal franc-maçon ainsi de suite si lañ jékki-jékki rek indi ko ay problème jiiñ ko terrorisme euh, néewal ko doole tëj ko si kaso bi lu yàgg di ko torturer di ko teg fait façon métit bu nekk euh, ba finalement ñu jugé ko génne ko mais teru biñ ko tëjee nitu dëgg yi àndoon nañ ak imam Aliou Badara Ndao di ko défendre sur tous les plateaux ba mu génnaat kaso bi wérul ba tey jii euh, lu ni mel am mais dama ne euh, peut-être moom jihaat na euh, wàcc na def na li nga xamante ni moom moo ko war liggéeyal na diin ak lislaam xeex na ak ay lubbi yoo xam ne ñu bëri ñemewuñ xeex ak ñoom looloo ko jural lii tey donc c'est c'est c'est tout à fait normal li mu dund ak xeex bi nga xamante ni soobu woon nag si parce que imaam yu bëri xeex bi nga xam ne imaam Alioune Badara ndaw mi ngi ko doon xeex ñemewuñ ko woon xeex mu génnaat continuer ci lancé boobu di continuer ay prêche am di xeex ak lobby yi euh, di xeex euh, uniquement euh, pour la religion musulmane donc tey jii mu génn àdduna damay wax ni imam Bad Alioune Badara Ndao a marqué son empreinte te ñi mu jàngal ñi mu doon dem muy wax ñuy dégg du ñu fàtte imam Alioune Badara Ndao am na ku may wax Kaolack imam Alioune Badara ndaw bokk na ci imam yi nga xamante ni ñoo ëpp xam-xam Sénégal kon xam-xamam boobu révolution boobu moo ko jural mu nekk un victime mm-hmm. Mm-hmm. Euh, d'injustice kon tey mm-hmm. dañ koy ñaanal yàlla xare ko àjjana lépp lu nga xam mi ngi ko doon liggéey lu baax euh, uniquement pour la religion musulmane yàlla naka ka yàlla fay encore une fois di massawu waa Sénégal jaajëf merci Moreau léegi ba ëllëg